Yeah. leen jaajëfal euh, si teewlu bi seen euh, émission face to face euh, dellu si ñu ngi waat fii nga xam ne mooy hôtel Fana di sunu partenaire yi ñu nuyu bu baax waa hôtel bi njëkkee ko ci monsieur et madame Lam teg ci madame Ndour mi nga xam ne mooy gérante hôtel bi ainsi que tout le personnel de cet hôtel nekk rek sunu dëkkandoo yi ñun waa TFM. xel quand même askan wax nga expliqué nga léegi. defe naa expliqué wala ba justifié nga ne âge euh, nekkul lu am solo loolu d'accord nañ ko nangul nañ la ko. ok quand même. Mhm. Euh, coalition euh, bi ngeen taxawaloon di Manko watu Sénégal bi nga xam ne yéen quand même il faut bien l'avouer PDS ak ñu mu ànd mu yéen ñii dëgg-dëgg yéen a nekkoon parti historique yoo xam ne yéen waroon nekk locomotive ba. Mhm. kon ba ngeen ne xalifa ba ngeen bañee ne xalifa Khalifa lu nekk tête de liste ba Oumar Sall ngeen waxoon. mais à la fin de la journée yéen ngeen génnee ngeen teg fa Ablaye Wade donc man loolu laaj bi ma la bëgg bi ma la bëgg a laaj mooy est que yéen da ngeen jàpp ne Omar Sarr bu nekkoon tête de liste bi du ngeen gagné. wala yow Decroix moom Diop Decroix boo ko nekkoon du ngeen gagné wala moom la man jàll wala nag nga ne daal xaaral Ablaye Wade xëy na sénégalais bëgg nañ ko ba léegi ngeen ne xëy na bu bu bu ngeen indiwaatee sénégalais xaw seen xol dina xaw a tooy ñu ñu ñu ñu yëru indi ko donc donc euh, est-ce que loolu amul euh, vraiment euh, utilisation bi ngeen bi côté côté opportuniste bi ngeen def ci ci ci choix wu ah laaj la bu solo. Mm-hmm. li ma la tontu mooy ku nekk moom la nga am ngay demee marché. ñoom ngeen amoon ah, bu fekkee ne danoo yaakaar ne Ablaye Wade bu àndeek ñun daal dina yiir dégg nga maam jiite ñu. yaa waaw ba fuuf nag du benn sax nag. moo ah, waaw waaw ñëpp itam nag moo leen ëpp bés moo tax bëgguñu ko gars yi bëgguñu ko nag waaw yow boo amee ku la ku ëpp bés ñi ci des. ñu ne la déedéet teg ko fee ndax bésam dafa bare déedéet bés bi kay dem koy utiliser nag. mais kon kon te bu Ablaye fii ba sàllar ñi ku nga xam <laughs> ay bu yegsee. <laughs> bu yegsee ba sàll gars yi ñëpp kenn dootul wax seen i wax. ah bon ah loolu lan si dugg nag yëpp peut-être xaaral ba mu ñëw. kon ma waaw du benn sax. benn benn niveau. waaw beneen niveau la hors hors classe. hors classe mais mais quand même monsieur le ministre est-ce que est-ce que est-ce que ça vous fait pas un peu mal au cœur euh, euh, euh, idée bi ngeen jaayoon Sénégalais ba vraiment ñu beaucoup de gens y croyaient liste unique bi mu nekk lu rafet loo xam ne. Euh, dañ ne enfin euh, politiciens yi euh, dinañu fàtte seen bopp pour vraiment jouer collectif te xëy na sax xawoon ngeen yëngal tuuti le camp d'en face ñoom président Macky Sall mais ngeen dem ba mu jigi lu ñëpp doon doon doon doon doon doon ragal ngeen daanu ci muy muy problème dëggoo bëgguma kii jiite maa bëgg a jiitu wala nangam waaw dama damay tontu faral di tontu ci loolu ma wax ne nit ki moom da ngay am sa yéene. xam nga man ni sànq wax nga ko bi ngay présenté. li ma daj pour opposition bi ànd nekk benn. depuis 2012 mburu daju ko ci taal. Mm-hmm. yaa ngi fàttaliku ne sama kër daanaka mooy. quartier quartier général bi alors. Euh, kon bu nee lu mel ni euh, mujjul sotti du ma neex yàlla xam na ko wante aussi euh, da ngay analyser parce que xam nga Sénégal Sénégal dafa garaaw Sénégal macha allah ñëpp am xel ñëpp am xel am na ci sax ñoo xam ne defe nañ ne ñoom rek am xel malheureusement parce que. Euh, boo seetlu politiciens yi kay nangam nangam politiciens yi kay nangam nangam politiciens yi lu ne ñu yàq ko politiciens yi mel ni politiciens yi dañoo bokkut ci waa Sénégal mel ni dañoo dañoo taw ci dañoo taw jóge ci asamaan si rek taw déedéet bi ñu toogee di waxtaan affaire tête de feeñ moo am ñu ne damaa bëgg a nekk tête de ñu ne damaa bëgg a nekk tête de bi ñu demee ba gis ne mënuñu mënta sotti mhm. boo ko seetloo li mu coalition bi di yaatu yaatu yaatu yaatu xam naa di nga ñëwaat ci liste yu bari yi waaye coalition bi juróom-ñett ñetti liste mhm. listub Abdoulaye Wade listub Khalifa Sall listub Modou Diagne Fada mhm. juróom-ñett ñetti ñetti liste alors waaw ba déglu ma rek déglu ma rek xam nga loolu su amee euh, dafa biñ koy song liggéey bi dañ koo xawoon a xeet dafa yaatu te nu defoon ne bu ñu ko songee rek mu sotti parce que délai yi moo nu ko mayut xam nga élection dafa am dele bu fekkoon ne dañ ko sumb juróom benni weer ca ginnaaw amul benn problème waaye nag dafa xat aussi euh, sawaay mu ngi ci nag Macky loxo ma ngi di dugg génn làqar ci nangam nangam enfin euh, mënuma cee mënuma cee sori mais daal xam naa ne ñun li ñu bëggoon daal euh, loolu lañ bëggoon waaye lii mu amit nag attention parce que fi mu ne am nañu ay liste ku nekk di nga dem laaj waaye nag noo ngi ànd itam ci pour processus bi aw yoon parce que bu dul loolu gars jaar ci diggante bi. yéen objectif bi euh, ah, si day am. mais est-ce que ah, day am. day am ndax xam nga euh, coalition yi fi mu ne dafa. moo am na homogénéité malgré tout li li ëppoon li gënoon a jafe mooy ñu ñu dajale ci diir bu gàtt ñoo xam ne xëy na daanaka mësuñoo daje ñenn ñi ah, léegi nag ñi mën a ànd dëgg ànd nañu par exemple ñi ànd ak xalifa ànd nañu ak xalifa euh, ñi ànd ak Abdoulaye Wade ànd nañu ak Abdoulaye Wade am na ñeneen ñu defar seeni liste euh, suñu liste bi daal man jàpp naa ne Sénégal dinañ ko woteel bu baax a baax a baax. te dinañu imposer Macky Sall. cohabitation mais mais mais euh, Ablaye Wade euh, euh, du ñàkk parce que xam nga Ablaye Wade campagne yu Ablaye Wade moom kooku da koy bàyyi moom ay ay secret la. yoo xam ne bu yegsee gars yi dinañ ko xam. ah mënta ñàkk. mënta ñàkk mi ngi mi ngi waajal Abdoulaye da ngi waajal hmm. <laughs> dinañ ko teeru fii teeru boo xam ne mooy ëpp teeru 99 mooy ëpp teeru 2014 bi ñu waaw bu baax a baax a baax moom kay bëgg na ñëpp ñi nga xam ne hmm. eh, maa namm nañu Abdoulaye Wade hmm. ak ñi nga xam ne Macky Sall tas na seen yaakaar ñëpp ñu dajaloo bu ko defee mu doon mu doon géejub géejub doomi aadama yoo xam ne ñoo koy teeru alors mais monsieur boo xoolee ne différence Euh, euh, bi ngeen am euh, yéen nag kii topp si yéen di waa Khalifa Sall 2754 voix la mën nañ jàpp ne amul majorité absolue est-ce que loolu jar na fecc ah xam nga départemental nga wax c'est-à-dire que nag bu il faut ramener mhm. mbir mi dans son contexte global mhm. fii écart boobu moo fi am mais am na yeneen gox yoo xam ne xëy na écart bi tollu noonu mhm. mais boo ko ramener maintenant aux aux élections même quand même sur euh, quarante cinq département suñu coalition gagné ci le quarante deux mm. loolu xam nga mooy majorité écrasante mm. kon sant yàlla bi foofu la nekkee te boo ko ramené aussi au niveau de la liste nationale di nga gis ni ah macha allah la ñu am ñun méngoon nag liñ doon wut mm. te ñoom xëy na liñ doon wut euh, yàlla ma mayu leen ko kon nag foofu foofu lañ koy teg du ci écart bi rek bu ñu ko leen rawoon benn baat dañ koy jël loolu mooy raw gàddu kon nag euh, beneen bi dégg naa aussi nit ñi di wax ay wax yi que c'est pas très démocratique may rappelé ni ñun au moins am nañ dose proportionnelle bu nekk suñu système te yàgg na tey waa France lool la ñuy joytu parce que ñoom amuñu dose proportionnelle bi nga xam ne ñun ay at yi at ci gannaaw am nañ ko ci suñu système mhm. donc aussi euh, doo jógee euh, d'un extrême à l'autre mhm. euh, xëy na équilibre bi ñu nekk nii waruñu ko xeeb lu baax la parce que ñun mhm. dañu boole ñaari système yi donc suñu système dañ ci dugal déjà une dose de proportionnelle te loolu ñu ngi ci jiitu démocratie yu bëri d' accord alors euh, euh, Alioune lan nga mën a wax sénégalais yi euh, ne foofu mooy li leen permettre ak ñeneen ñi ngeen bokkaloon jogante yi lan moo tax si sa xalaat sénégalais yi jox leen victoire. dañu bokk nag ci système boo enfin ci gouvernement boo xam ne ku gumbawul di nga gis ni quand ay réalisation yu am solo ñu ngi koy def ci réew mi. Euh, surtout boo génnee Ndakaaru parce que coow li mooy li ñuy wax rek tubaab di wax benn une tempête dans un verre moom lañu ñu fii ci Ndakaaru mel na Sénégal fi la yem euh, la preuve département surtout département waxuñu sax région de Dakar mais département bi nga xam ne juróom-ñaar rek la par rapport ak euh, kuréel goo xam ne 165 membres ñoo ci nekk. Mm-hmm. donc tey boo génnee Ndakaaru Ndakaaru ci boppam. yu am solo ñu fi am. population bi li ñu leen defal ci ngëneel ci lu baax. Mm-hmm. mais loolu lay fayee bu élection amee. Mm-hmm. dama jàpp ni bu dee sénégalais yi tey amoon nañ benn forme de rejet parce que gisuñu seen bopp ci politique bi nga xam ne gouvernement baa ngi koy doxal gisuñu seen bopp parfois aussi ci exécutif locaux yi ñu doon. parce que loolu dafa am solo. yore mhm. yi peut-être euh, benn rejet benn phénomène de rejet. Mhm. en tout cas du ñu woteel. Mhm. mais dañuy sant yàlla ci ni ëpp ci seen ci ñoom euh, ñun la ñu woteel. léegi nag boo ñëwee ci gox-goxaan yi explication yi bëri na fii ci Ndakaaru dafa am solo parce que 19 communes la. ñaata commune lañ ci gagné loolu dafa am solo. ñan ñoo jiite commune boobu seen taxawaay lan la yooyu yëpp dafa am solo. donc loolu la ñuy war a jàngat te xam nga euh, boo ma bëggee tooñ tuuti. parce que <laughs> ci la bokk itam. Euh, souvent da ngay dégg ñu ne ndakaaru diwee borom. ndakaaru amul borom. ndakaaroo yi ñoo ko moom la preuve ñoom ñooy ñooy joxe ñooy nangu. mais euh, victoire bi est-ce que mën na rafet ni mu war a rafetee bu ngeen xamee ne am na quand ay ay. Euh, ay ay villes yu emblématiques yu ngeen ñàkk ci dakaar lu mel ne ay Médina ay Grand Yoff euh, et j'en passe. non euh, pas yu ñu ñàkk <clears throat> c'est des c'est des communes yoo xam ne xëy na bëggoon nañ ko gagner gagner wuñ ko. Mhm. mais du ñun ñoo ko yor. Mhm. lu dëgg dans le dix-neuf communes c'est important de voir. Mhm. benn Bokk Yaakaar dafa am quand bon qualitatif. beaucoup de gens xalaatoon nañ ni du ñu gagner Dakar. waaye gis ngeen ni tey. ah boo gañee Plateau. Mm-hmm. gañee Gorée gañee Grand Dakar gañee Ngor. Mm-hmm. gañee Wakaam gañee Yoff. Mm-hmm. ah gañee Parcelles et cetera donc kooku c' est des euh, biscuiteries. HLM euh, perte nañ ko et cetera. mais c' est des c' est des avancées notables. te loolu dafa am solo si parce que xam nga souvent bu ñu doon wax euh, tel groupe moom moom Dakar. mais groupe boobu ñan la. parce que ñun ñii ngay wax ni ñoo ñoo doon groupe bi di. c'est loolu dafa am solo aussi. mais yow mosoo bokk ci pro ci euh, jege ñaari Khalifa Sall yow. non jege ñaari cest camarade de parti. boo xam ne 2009 euh, ànd nañ ci li ñuy wax Benno Siggil Sénégal. parce que mhm. parti bi la woon. 2014 mhm. ñu ànd ci taxaw Dakar. Mhm. toujours parti bi. parce moo ko. ci nga amaatee. Euh, réélection waaw mais d'ailleurs loolu au passage ah dañ ne woon xam nga diw la fale normalement bu ngeen àndul dootoo faluwaat. Euh, mais chaque fois bu ñu delloo ci askan bi mm-hmm. référendum dañu delloon ci askan bi ñu gañe mm-hmm. bi yoon dañu delluwaat ci askan bi ñu gañe mm-hmm. donc euh, sànq dama la ne ndakaaru amul borom ku dul Dakar waay maintenant nag résultat ñun liñ ci boon mooy gañe bu doon suñu sago ñu gañe euh, benn large majorité mais nag aussi day ëpp ci démocratie parce que imagine la parlement bi ñuy tabbi Euh, gis nga pour pourcentage bi ñu ci nekkee. Mhm. c'est une écrasante majorité la benn bokk yaakaar bi am foofu. Mhm. donc yooyu yëpp daal dañ koy tempérer pour wax ni daal ñu ngi sant yàlla. Mhm. di sant sénégalais yi ci confiance bi ñuy jox. est-ce que monsieur le ministre euh, yëkkati kàddu boycott euh, ci fi réew mi toll est-ce que loolu responsable na ci parti politique bu bu ñu toll. waa ay setu xam nga élection yi ñu génnee dafa nekk ay élection yoo xam ne bii mën na ci jàngat lu bare. parce que bu ñu xoolee euh, chemin bi nga xam ne bii yoon bi nga xam ne bii Sénégal jaar na ko depuis bi ñu amee suñu indépendance. Mhm. mën nañu wax ni ba 2012. Euh, mhm. euh, Sénégal démocratie bi nga xam ne bii moo fi nekkoon dañ ko raffermir parce que bu ñu xoolee ci sengoor sengoor bi mu fi nekkee parti unique la woon. Mhm. Senghor bi ñuy dem ñëpp xam nañ yenn anam la joxe pouvoir bi Abdou Diouf. mais Abdou Diouf bi mu ñëwee moom tam def na ci ay jéego ba. ñu egg si ay mille 2000. mille bi ñëwee ñu def ay élections ñëpp ni Sénégal dana tàkk. waaye Abdou Diouf dafa wane woon ay dispositions. yoo xam ne bii nekkoon na nit boo xam ne bii amoon na ouverture d'esprit. parce que am na ay moments yoo xam ne bu demee ba ñu nekk ci situation bu critique dana mën dellu gannaaw malgré que régime am du woon démocratie bu parfaite parce que démocratie bu ñu fi eggee fii tey xeex la boo xam ne Ablaye Wade moo ko mën a depuis vingt six ans mais moom dana am intelligence politique gu mu dellu gannaaw waxtaan ak opposition bi quelquefois même mu jël ñi nga xam ne bii. ay euh, adversaire am lañu. dugal leen ci guvernement comme Abdoulaye Wade ni mu ko defee. dugal leen ci gouvernement am pour décanter situation ba ñu egsi ci élection 2000 élection yooyu yëpp jaar ci yoon ñu continuer Abdoulaye Wade tam mu fi ñëwee ba 2012 euh, mën nañu critiquer régime mën nañu wax lu nekk. waaye du liggéey boo xam ne bii euh, ni mu liggéeyee Sénégal. ak raffermissement démocratie parce que droit de marche droit de manifester ak yu bëri yoo xam ne bii moom moo ko fi def mm-hmm. euh, je crois que dafa contribuer pour renforcer démocratie Sénégal ba ñu egsi 2012 mm-hmm. li ñu constaté moo di euh, Macky Sall bi mu jëlee euh, nguur gi ba léegi mm-hmm. amoon nañ ci yaakaar parce que quoi qu'il mais bu fekkee amoon na problème ak Wade wala moom problème ak parti bi ci suñu biir la jógee donc bu fa jógee yaakaar nañ yi nga xam ne bi jàng na ko ci biir parti bi Euh, maanaam ci affaire u démocratie mm. dana ko doxal dana ko tëral mais malheureusement euh, élection yi ñu jógee comme ni ma ko waxee mm. boo xoolee ni mu demee ci mbirum carte mm. carte d'identité yi carte d'identité yi euh, nu mu yi ak carte de vote d'électeurs yi bañ koy commencé ca njëlbeen lañ leen wax ni lii ngeen di bëgg def dana nekk problème parce que même CEDEAO bi nga xam ne bii ñoom ñoo joxe recommandation yi pour ñu defar carte yi CEDEAO waxoon na il faut que ñu am benn période dexpérimentation mmh. man expliqué naa ko ci beneen antenne bu yàggul comprendre ma lu tax ñoom ñu précipité wu pour wax nit ñi alors que bu ñu defoon toilettage u fichier électoral bi. Mmh. bàyyi nit ñi ñu voté ak seen carte d'identité yi lii nga xam ne dañ koy def carte de numérisée yu euh, CDBA yi ñu def ko ndànk-ndànk ba mën seek si ba xëy na 2019 bu ñëwee ñu mën ko euh, utiliser dans des conditions optimales de transparence mais euh, dafa nekk loo xam ne bii. kenn comprendre précipitation bi ñuy def pour e defar carte yooyu élection yi ñëpp gis nañ ni mu demee ñi ci sénégalais yu bëri presque plus deux millions cinq cent wala deux millions de personnes yoo xam ne bëggoon nañu voter parce que ñoom dañu fixé woon benn gàpp nii trois millions bu ñu ko amee baax na pour ñu mën a voter mais sénégalais yi jóg ci seen bopp dem ba inscrit ba mu mat six millions bañ naan six millions cinq cent ça veut dire que sénégalais yi jógoon nañu pour euh, exprimer mu wax peut-être seen cofeel ci nguur gi fi nekk wala seen rejet ci nguur gi fi nekk donc xëy na Macky Sall ak gouvernement bilan bi nga xam ne bii tey mooy seen bilan ak force bi nga xam ne bii opposition bi ak rejet bi nga xam ne bi élection chaque fois bu élection amee score bi mu amoon de 65 pour cent du reculé tiital na ko ba ñoom yaakaar nañ ni bu ñu joxee sénégalais yëpp ñu mën a voter dans les conditions normales xëy na peut-être ñoom du ñu am majorité tey. rax ci dolli euh, ay bureau fictif ay bureau euh, maanaam euh, provisoire abri provisoire yu ñu def ak condition catastrophique yi nga xam ne bii boo demee ci certaines localités. Mhm. maanaam comme Touba. Mhm. wala ay Dagana yooyu. Mhm. nit ñi wotee nañ ko fa. donc loolu yëpp bu amee. je crois que responsabilité la pour euh, euh un homme comme Ablaye Wade kii nu ma ko waxee rek un des précurseurs de la démocratie au Sénégal euh, mu xeex ba egsi fi accepté malgré son âge et malgré son parcours politique ñëw euh, dimbali coalition bi nga xam ne bii ñu manko taxawu Sénégal donc euh, euh, il fallait que mu expliquer quand li nga xam ne la nit ñi considéré comme un échec mais en réalité c'est une victoire pour le pouvoir mm-hmm. euh, euh, parce que boo gisee lu mu nekk victoire pour l'opposition li bu système électoral bi nekkoon système électoral bu boo xam ne bii système électoral bu normal la bu démocratique mm-hmm. mënoo gis ku am 49 virgule 5 xam ma 49 virgule 7 pour cent mm-hmm. am 125 députés alors que ñi nga xam opposition boo leen réunir mat nañu presque cinquante et pour cent. am vingt cinq xam nga trente députés. donc loolu déjà wane na ni euh, kii euh, euh, système électoral bi. war nañ ko xoolaat. Mhm. alors euh, monsieur le maire maa ngi wax léegi seen que seen victoire bi est-ce que euh, on qualifier de belle bu ñu gisee. Euh, accusation yi nga xam ne euh, mu ngi jógee ci opposition bi ak sax ay ay sénégalais lambda ñoo xam ne kenn mësu leen dégg ñu ñuy ñuy ŋàññ wala nangam ñu jóg jël seen parole euh, vraiment défier quelque part l'autorité ou bien alors bëgguma tudd benn tur <laughs> yaa ngi seetaan ma ngay seetaan mais bëri waaw bëri nañu ku si mel mun naa tudd par exemple ku mel ne Ami Collé Dieng hmm. ah nga xam ne jóg na jël jël kàddu wax xëy na kàddu ya ak na mu ko waxee euh, euh, mun nañ ci añ ah, reer si euh, mais quand même dama bëgg wax hmm. ne. kooku ci añ moom di nga am problème biir. di nga am problème biir. <laughs> kon kon kon kon. kàddu yu mel noonu dafa rafetul ci suñu réew. Mhm. te du moom rek parce que dégg naa une autre dame la bu tudd Ba. waaw waaw benn dañ ko war a proscrire ci réew mi. dañu war a delloo nit ñi ci seen place. parce que mhm. réew nag. nit ñi euh, mënuñu nekk euh, ci am genre dis euh, dictature mhm. ñi yaree di ko mhm. parce que nag loolu moo fi bëgg a xew nag man mhm. du loolu moo mën a apprécier loo nit ñi suñu victoire c'est pas du loolu parce que loolu tëddewul foofu dañuy respecter d'abord sénégalais yi parce que ci lim ah ci lim presque deux millions ay nit yu jël jox ñu seen xob dañ leen war a respecter parce que ñoo ëpp ci réew mi ñoom bu ñu respecté loon ñi ñàkk nu muy demee donc loolu man foofu lay teg kàddu gi pour wax ni démocratie lañ nekk démocratie bu avancé la. Mhm. xam nga euh, rëq-rëq yi naam bëri woon na ci élection bi. Mhm. Euh, ñu bëri yaakaaroon ni euh, cinquante quatre pour cent ci fichier bi nga xam ne dañ ko yokk. parce que mhm. fichier bi dafa dem à six millions trois cent et quelques électeurs. kenn xalaatu noonu ni cinquante pour cent ci ñooñu danañ dem voté ji bu keroog ba le dimanche. te gis ngeen ni dañoo teel a fag yeewu fagaru dem pour exprimer seen seen seen droit citoyen boobu. kon loolu dañ ciy dañ ciy saluer maturité politique peuple sénégalais bi. Mhm. Euh, nit nag doo ñànki c'est-à-dire que booy dem jongante mën nga gañe mën nga ñàkk. Mhm. démboo Ndiaye xëy na am na yeneen jongante gañe nañ. Mhm. ñu kàddu yu ñaaw yi. tey boo ña boo perte. Euh, na nga ci booleeg euh, maandute. xam ni yàllaay joxe. bi yoon joxu la. mais bu ci ñaaw bul ñaaw ci xare bi. kon da nga ne am na opposition buy wax effectivement mais seetlu bu baax opposition bi balaa yii di génn sax ñu li ñu doon wax ni tey ñu ko doon wax. parce que da yaa ngi préparé sa défaite. Mhm. di joxe argument yoo xam ne amul benn argument bu ñu mën a firnde. Mhm. Euh, argument bu ñu mën a firnde moom monsieur le maire loolu ko nangu euh, lu ci mel ni fichier électoral bi nga xam ne opposition bi euh, yàgg na ko ñaxtu. lan lañ ñaxtu ci fichier bi. ah mais li ci ñaxtu xam nga ko. <laughs> loolu non non on va pas refaire le monde ici nii nii rek justement bu ñu xoolee. Euh, lu mel ne carte yi nga xam ne euh, distribution bi mm-hmm. euh, wax dëgg yàlla ñu bëri nañ jàpp ne c'est à la tête du client bu leen leereen amet ñaam yi xëy na du voter benn bokk yaakaar ñu téye ndànk carte d'identité dem jox ko Abdourahmane bi nga xam ne dina leen wóor ne dina leen voter loolu tamit c'est des choses yoo xam ne yi fi nekk existé ko donc loolu noonu yëpp soxna si loolu ay wax ku daanu charrette la ah nan ngay jàkkaarloo ak citoyen fi muy yéen yéen a wax ni les politiciens c' une infime partie de la société yéen a ko wax. waaw euh, say militants ah, euh, pàcc bu ndaw la ci ñuy wote ci. Mm-hmm. yow say militant nga moo moo ñoo la mën a leer ni kii da lay woteel. Mm-hmm. maa ña ca des nan ngay xamee ni diw euh, nii lay wote. non mais mën nga jàpp ne par exemple dëkk dëkk yu mel ni ay ay Grand Yoff xëy na Grand Yoff nga ne ah tiens Khalifa Sall moo fa ëpp doole donc. waaw lu tax léegi ñoom ñu gagné Grand Yoff pourquoi ñu gagné ko. Eh la question xam bu dee foofu par exemple dañu defoon li nga wax. Mm. lu tax ñoom ñu gagné ko. Mm-hmm. xam nga ñun fi ñu gagné nee nañ loolu la ñu def. Mm-hmm. te yaa ngi wax bu baax Grand Yoff symbolique. Mm-hmm. muy commune bi nga xam ne xalifa Sall jiite na ko en tant que maire de commune. dëkk fa. tey mu nekk maire de la ville. kon xam nga c'est symbolique. Euh, xare bi taroon na foofu. bu doon yi ñuy wax yëpp am na kon xanaa foofu dañ koy gagné. waaye foofu gagné ko ñoom ñoo ko gañe parce que règle yi benn la. du kon euh, euh, rëq-rëq day am wax nga ci fichier bi fichier bi booy fàttaliku euh, nit ñi dañ d'accord ne bu yeggee 4 million mm. ñu voté ci fichier bi. Mm. bu fa yeggul ñu denc fichier bi fi nekkoon. Mm. yàlla def ñu dem ba 6 millions 300 et quelque. xam nga wees nañ ko de 2 millions 300. muy benn ñaareel bi itam wax naa la taux de participation bi. cest tey boo xoolee lim bi voté. Mm-hmm. voté koon ci voté yi passé. kon yooyu yëpp da nga ciy tenir kon ci qualité résultat bi génn nii. Mm, mais euh, euh, Cheikh Sadibou Fall euh, sànq yaa ngi doon ñaawlu wala ba di étonné wu ci résultat yi na mu demee nga ni victoire la ci opposition bi mais man dama jàpp ne échec la ci opposition bi te fu ma fa ngeen fa ngeen échoué ñaawee na nu ne ndaxte déggoowu leen encore une fois. Euh, ba nga xamante ne ni mu am éclatement ku ne demal sa yoon demee demee sa boor et wax dëgg yàlla euh, euh, à l'issue des élections résultats yi ba ñu commencé wadd c'était un peu ridicule ñu gis opposition yëpp daw ci ginnaaw président Wade toog Wade de rëccu naan bu ñu yëgoon ànd est-ce que loolu nekkul yàpp sénégalais yi quelque part ay surtout li nga wax d'accord naa ci mm-hmm. parce que bu ma waxee victoire la j'ai dit victoire au point de vue de la communication mm-hmm. parce que tey leer na ni ak conférence bi nga xam ne bii moom la war di def. sénégalais yëpp xam na ni élection yi ñu jóge jaarul ci yoon. mais si position opposition bi par rapport euh, stratégie bi nga xam ne bii moom la ñu adopté ci élection yi. man je suis totalement en phase ak yow parce que euh, li wóor ba wóor et def naa man dans une interview bu ma def ci benn euh, télévision. Euh, peut-être concurrente ma wax ci lu leer nañ interpeller toute l'opposition boobu première coalition bi ñu def. mu regrouper l'essentiel de l'opposition en leur disant que ëllëg bés bu ngeen tasee coalition bi ba maanaam régime Macky Sall bi jëlaat euh, majorité à l'Assemblée nationale vous aurez trahi le peuple sénégalais. Mmh. parce que le peuple bu fait confiance. Mmh. et malheureusement c'est ce qui s'est passé. Mmh. coalition boobu la ñu tas. moo tax en désespoir de cause euh, beneen opposition bi amuñu dara lu dul def. lu dul dem jëli Ablaye Wade parce que Ablaye Wade bu ñëwul woon tey musiba am. bu Abdoulaye Wade ñëwoon tey lii ngay wax naan échec la du point de vue du nombre de députés yi ngi am mais dana gën a grave foofu parce que booba temps euh, xëy na présence Abdoulaye waat sax maanaam impressionné na pouvoir bi ba pouvoir bi reculer ci yu bare parce que bi mu ñëwee ci la ñu commencé waat distribuer carte yi normalement accéléré ko ci loolu yu bare yoo xam ne bi ñu ko doon def stratégie à l'intérieur du pays pour euh, maanaam falsifier élection yi yu bare reculer la parce que Ablaye Wade wër na territoire national bi donc ñu doon wax naan mag la mënul dem euh, wan danee ni fi mu nekk ba léegi mu ngi fi euh, donc nekk na loo xam ne bii franchement bu ñu ko xoolee ba xool maanaam gàcce la pour opposition bi parce que man wax naa ni opposition bi dañuy war a taxaw sa baalu sénégalais yi parce que Sénégal yi defoon nañ seen yaakaar mbedd mi foo dox ci àll bi ci mbedd mi ñëpp waxuñu peut-être Macky Sall comme moom fexe na ba prolongé mandat ba 2019 mais au moins opposition jël la responsabilité du gouvernement de la République pour changer les choses lool lañu ñu tegoon seen yaakaar mais yaakaar boobu opposition bi tas na ka tasaaroo seen biir parce que Sénégal dafa am lu fi nekk ku nekk da nga bugg nekk président ku nekk bugg nekk ministre ku nekk bugg nekk maire loolu mënul nekk ci réew réew euh, yooyu ay non seulement ak compétition démocratique la war doon euh, du point de vue politique mm. mais ku fa yàlla teg nga xam ni teg na ko fa ba fekkee ni li muy doxal am ah, méngoon naag li nga xam ne moom la askan bu bugg xayrun bu fekkee nag méngoo la askan bi bugg di sonal askan bi ñu xeex ka mu jóge fa tu vois dans des avec des moyens démocratiques et des moyens alors que ñoom loolu la ñu buggul looloo tax tey opposition bi je crois que faillir nañu seen devoir mm. tey trahir nañu le peuple sénégalais mm. et il faut avoir le courage de le dire position opposition ci élection yi lépp lu leen dal la quelque part comme ni ma ko waxee ñoom ñoo organiser seen défaite ñoo jox Macky Sall ay moyens ba mu mën a def lii mu def. Mm. Euh, salfaañi euh, maanaam élection yi. ba mën a amaat cent vingt cinq députés alors que ñoom bien que étant majoritaire du point de vue des voix. Mm. tey il se retrouve avec euh, trente sept xaw ma quarante députés ce qui n'est pas normal. Mm. dans une démocratie. alors que bu ñu boole woon ñun ñëpp nekk benn xëy na peut-être tey. donne bi dana changé hmm. fii au niveau du eh, eh, Sénégal sànq monsieur le ministre wax nga benn affaire boo xam ne euh, ñi na yow osé ko wax te pour man c' est quand même quelque chose euh, d'assez euh, vraiment lu lu lu xaw a lu xaw doy waar la parce que Abdoulaye Wade il a fallu ko mu ñëw pour ngeen am résultat yu mel nii bu ñëwul woon lii du ngeen ko am est ce que loolu xel mënees na si na ko nangu bu ñu xalaatee Wade waxuma rek âge mais tamit ña ña bàyyi ci ginnaawam. Euh, gëj na ci dëkk bi euh, yàgg na moom nekkatu woon ci terrain bi euh, te Wàdd ku ko gisee na mu na mu comporté woo ci campagne bi xam ne uti naag Wàdd bu 2012 wala Wàdd bu 2000 en réalité Wàdd mën nañu wax ne campagne wul carrément na mu doon campagne peut-être nostalgie la doon demee ndax am na fa xam dem na fa émotion boo ko téye ba waxul na mu doon campagne campagne wu ko te quand am ngeen résultat yu yii ngeen am. Mhm. donc mën nañu wax kon ne ne après Wade c' est le c' est le déluge. non après Wade c' est pas le déluge. c' est alors. Euh, ce qui se passe ce qui se passe en réalité c' est ñi nga xam ne bii moom la ñoom la Wade dénkoon gannaawam. Mhm. tey bu fekkoon liggéey bi nga xam ne waroon nañ ko def. au niveau du parti. Mhm. surtout du parti démocratique sénégalais parce que moo doon parti leader c' est le premier parti d' opposition. bu fekkoon jaaral nañ ko nañ ko war a jaarale yoon. ba parti bi bañ a éclater ba mu am ay mouvement de contestation interne parce que man li may wax li nga wax dëgg la man li may wax ñu bari koy xalaat ci biir parti bi mais duñ ko wax wala dañuy def affaire ay fumisterie toog ci gannaaw ni pat mel ni waxuñu dara parce que c'est pas des gens responsable mais man dama bugg PDS man ñëpp xam nañ ni man Ablaye Wade dama am cofeel ci moom dama ko gëm donc lépp loo xam ne bii day yàqal PDS wala mu yàqal Ablaye Wade man du ci ànd te taxaw ñëpp tey di wër Ablaye Wade di wax koo ci wax mun la parti bi liggéeyul dara parti bi deful dara. Mm. mais bu tasee desoo lu dul tax kanam Ablaye Wade wax ko ko duñ ko ko wax. Mm. ñii dem jëlee Ablaye Wade tey. ñoom ñoo jël seen responsabilité parce que biñ demee ba xam ni léegi coalition bu mag boobu ñu defoon mais waroon nañu revendiquer leadership bi. Mm. revendiquer ñu lii leadership bi ñu bàyyi ba coalition bi tas ñu jël seen avion dem toog ak Ablaye Wade Versailles. Mm-hmm. Ablaye Wade wax na ko nee na dañ ma woo ñaan pour ma ñëw. Mm-hmm. waxul ni man maa jël sama responsabilité mm-hmm. dañ ma ñaan pour ma ñëw. boo dégloo conférence de Lamine Diallo ci boppam. Mm-hmm. bi nga xam ne bi euh, tekki. la bokk. Mm-hmm. Euh, lan la wax nee na Ablaye Wade ñëwoon moom moo sauvé meuble yi. dama ne ministre euh, liste ya bu bu ñu bu ñu taxaw ci seen bos yéen beneen seetlu bi mooy bu weesoo Ablaye Wade mu nekk dëgg liste ba mooy yéen leader yu mag yi yéen ñëpp da ngeen dem làqatu ci liste nationale bàyyi département yi lu ko waral loolu. non làqatu ci département amul. non làqatu ci département attends làqatu ci département d'abord yow boo nee Aïssatou Diop mooy sama euh, responsable ca Salémata département Salémata pourquoi élection jot doo bàyyi euh, euh, Aïssatou Diop Fall jiite département Salémata puisque moo fay sa responsable kooku benn pro point la boo xam ne ñu duñ ko discuter ñaareel ba xam nga ne Abdoulaye Wade bu buñ ko falee député du toog député voilà donc affaire tête de liste lu tax ñu dem ci liste nationale nag ku nekk yaay seet ni ngay tojee sa bopp jinax ñun. dañoo seet loolu non non non loolu déedéet ci. Mm. dañoo seet suñu nu ñuy toje suñu bopp jinax ni mu gën a baaxee. Mm. ñu defee ko noonu. Euh, bëri na ay figure yoo xam ne ay figure emblématique yoo xam ne. ah euh, buñ jëlul tamit seen retraite politique <laughs> dinañ def benn pause wala ba en tout cas benn dinañ jël ay année sabbatique yoo xam ne. Hmm. Euh, euh, daal du seen gëmuma ne seen coobere la. c'est c'est au au à l'avantage de la démocratie sénégalaise. ou bien à l'avantage de la majorité présidentielle. ku ci amoon ku na dellu tuuti ci métier ku ko amul nag na ko wuti lu muti métier. mais mais mais est-ce que est-ce que est-ce que monsieur le. mais moi j'ai l'espoir pour cette treizième législature. ndax lan. parce que d' abord deuxième bi pare te ñu koy ŋàññi damay fàttale euh, c' était une majorité présidentielle moo fa nekkoon boo xam ne voté na tout ce qui permettait au gouvernement en place de travailler majorité la boo xam ne seen loi de règlement yëpp dañ ko voté à temps alors bi leen jiitoon daana toog ay trois quatre du woote te loolu mooy contrôler l' action du gouvernement. waaw déggoo fii yenn loi liberticide yi ay genre loi Ezzan. Mhm. ay amendement Moussa yi mhm. wala ay reg change bu soppi règlement pour indi un mandat de cinq ans mhm. à un an déggoo ko ci législature bi. kon bii moo gën fuuf ba mu ba mu fi jëlee woon ci avancé boobu jàpp naa ni treizième bi mooy gën incha allah. Euh, bi bi bi fi wut. mais xam nga treizième bi ma ma continuer sama question li nga xam ne en tout cas moo nar nekk euh, euh, li ci gën a fës mooy. Euh, dina bëri ay figure yoo xam ne euh, euh, jël nañu seen dërëm seen ñaar dërëm dajale ko. Hmm. soobu ci jongante yi ngeen force leen à la retraite. wala boog ngeen ngeen askan bee leen forcer yéen leen forcer. à la ah, retraite askan bee voté. yéen a forcer à la donc. doo ma ci limal quelques-uns. <laughs> pour nga gën a mun jubile waale maa bañ. plaisir boobu du ma la ko defaral donc. ñooñu nga xam ne mun naa limal sax vraiment. Euh, quelques-uns. xamoon naa ne mënoo ko bañ a <laughs> fort. <laughs> t'es tellement méchant <laughs> ñu mel ne ñu mel ne euh, euh, euh, sama mag jooju Malick Gakou ah, ñu mel ne ay ay ay ay ay ay de Mbodj mm. ah ñu si mel ne ay ñoom met El Hadj Diouf wóorugul mais yow bu la si gën a neex du ko tudd mooy sa rakk jooju ne ma tudd ko rek nga kontaan bàttali bi ah non du ma ci kontaan nga nee nga sama rakk la waaw waaw mais sama rakk jàmm laa ko yéen mais par pure forme mais mais quand ñooñu ñooñu xam nga opposant yu vraiment yooyu pure et dure yooyu. Euh, au président euh, Macky Sall ñoom ñëpp euh, pour le moment daal ñu bëri jàpp nañ ne à peu près à quatre pour cent duñu fa dugg loolu li muy nirool mooy que président Macky Sall ñu bëri accusé ne ba mu fi toogee ba léegi. lépp lu mu mën kéem talaay kàttanam mi ngi koy def pour euh, casser de l'opposant képp ku ko ne non mu mu mu mu pes la mbaj la dégg nga euh, bëmbax la fee nga nga nga jaar donc donc donc mu mel ni lii pour affaiblir ay opposant la nga benn sénégalais ñoo woote ñooy décider. sénégalais bu ñu woote loolu lu ñu am majorité. benn ñaareel ba da nga ne des figures emblématiques oui par exemple sama rakk ji nga sut vraiment jàmm rek laa ko yéene. jàmm rek laa ko yéene. mais xam nga intérieurement xam nga kontaan mais non jàmm laa non non jàmm laa kontaan tuuti. oui parce que ah, ay Bamba Fall yooyu xam nga bëgg tuuti. dama ne Bamba nekk foon kon du du changement. waaye moom sama rakk jooy par exemple. Hmm. bon loolu dañu ko éviter crampe parce que dafa ne cinq ans da doon yëkkati loxo ak wàccee loxo neen loolu la fa def. Hmm. bon ñeneen ñi euh, bëgg naa nga wax ma yan plus value la ñu amal parlement Sénégal. lu dul euh, comme disait ma dégg seen benn collègue wax bu séance bi commencé ñu ne bon maa ngi dem euh, def benn déclaration ci hall bi voilà def buzz mm-hmm. euh, donc sénégalais yi ñoo décidé du Macky Sall encore une fois. Mm-hmm. parce que Sénégal Macky Sall loolu loolu stratégie Macky Sall veut affaiblir ay euh, boppam benn yoon bu bu leer naññ boo xamante nii du am kenn ku taxaw naan ko non xam nga yéen euh, euh, tracel boppam daal benn boulevard pour xam nga lan mooy lan mooy seen problème mm. fii moom gars yi dañu aay pour nettali géntu muuma mm. <laughs> waaw président Macky buy dem jongante ji dafa bëgg gagner il voulait une majorité mais kan moo koy jox sénégalais yi. waaw si les sénégalais joxuñ ko woon du ko am. mais mun la ay pexe ba nga xamante ni nii dina la ay ndëgg sa. mais mais politique la politique la stratégie politique la te ñun nag dañoo bëgg jiital ki gën a xarañ. Mm. duñu ngaaka bi moom duñ ko teg ci kanam. Mm. ki gën a xaral li mu bëgg jiital. Mm. donc loolu Séné décision peuple sénégalais la nañu respecté peuple bi. am na ñoo xam ne ba député doon nañ ko bii avant nekkuñu ko amoon nañ seen njëriñ pour Sénégal. Mm. donc chaque chacun fi nga nekk. man maa ngi nii di euh, rëy làmmiñ man daw ma de assemblée. na ah, waaye yow. Euh, dégg donc non du question loolu c'est-à-dire que on peut être utile. à des stations yu bëri. dans ce pays là ñëpp du ñu député. on est 14 millions de Sénégalais il y a 165 députés. Mm. du dëgg ça veut pas dire ñoo fi gën extra mais en instant def nañ ay choix politique bokk ci ay lang mm. sénégalais yi ànd ak langues yooyu may leen la majorité. Mm. Euh, yaa ngi doon wax euh, euh, keroog ci sunu antenne yi que ni condition dialogue entre président Macky Sall ak yéen opposition bi que réuniragul. Mm-hmm. Euh, euh, jamono yi nga xam ne fi mu ne euh, ba élection yi jàllee résultat yi première partie bi weesu na commission bi joxe na bi desee mooy confirmation wala information conseil constitutionnel. Mm. mais xel yu bari jàpp nañ ne bu loolu weesoo. Mm. président ma Sall day dina soppi. lenn ci en tout cas xarkanamu gouvernement moom. Mm. te moom ñu bari ñu ngi koy crédité que ni. li mu bëgg a def daal mooy gouvernement d'union la bëgg a def yaatal yëf yi. Mm. gouvernement d'union boobu euh, bu fekkante ne euh, président Macky Sall dëggal na ko. Mm. Euh, foog nga ne beneen forme de dialogue la. Mm. wala foo foog nga ni daal dina nekk lu baax pour apaiser quand même ñagas-ñagas yi am seen diggante yéen opposition ak moom pouvoir. xam nga <coughs> président Macky Sall ay waxam man franchement pour ma. jox ko gëdd. day metti ci man expliqué naa la ko dès le début de lu tax. waaye boo nekkee ci réew doo xaddi mukk ñu yaakaar ni. Euh, ëllëg ki nga xam ne bii dafa juumoon ci démarche war na ko mën rectifier ba jaar ci yoon bi nga xam ne bii mooy indi jàmm mooy imb renforcer démocratie au Sénégal. donc bu waxee loolu wax na ko. le problème du wax ko moo di mu jëfe ko. parce que il est évident que ni bu ñu paree ci élection yi. Mm-hmm. en attendant ñu euh, cour constitutionnelle proclamer les résultats définitifs il y aura le contentieux électoral. Mm-hmm. waaw boobu il ñu vider mm-hmm. bu ñu vider contentieux ba nag ñu soog a waxu dialogue. mais man exemple yi ma gis Macky Sall jox ko yëpp ci appel au dialogue. moo di woote nit ñi ñu toog. lui moom ci boppam. dana fexe ba opinion nationale internationale ah Macky Sall day wax dëgg yàlla nitu jàmm la mi ngi woote mais li ñuy wax ci biir dialogue bi bu génnee du ko wala bu fekkee am na loo xam ne bii d'accord nañ ci bu génnee leneen lay def loolu nag day metti opposition bi tam mënul continuer ad vitam aeternam comme ni ñu koy waxee ci tubaab euh, di gën nit kook nga xam ne bii lépp lu mu leen wax rek da ci dellu gannaaw et puis du du opposition bi rek même waa waa coalition ñu mu àndal coalition bi nekk ci kaw waa PS ak waa kii dafay def des fois daf leen di imposer parce que j'ai l'impression ko moom euh, am na kenn ku ma ko waxoon nee dafay gérer Sénégal comme une dictature mais euh, Euh, bu fekkee ni lool la tamit yaakaar naa ni mi ngi koy jëfee parce que moom day imposer. dañoo ni lii la wala lii la bu dul lii euh, lu ma neex laay def. Mm-hmm. donc loolu mënul doxal réew. Mm-hmm. ci musiba rek la jëmee. Mm-hmm. donc jot na bu fekkee ni dafa dialogue bi li ci jëkk mooy am ay élections yu transparentes règle de jeu yi carte yi ñuy wax ñu jox nit ñi seen carte. ministère de l' intérieur bi waratu fi gérer élection. Sénégal yi ñuy jàpp di leen tëj à tort et à travers sur des détails. vraiment ko. Karim Wade ko fii jugé ko ba léegi mënuñuy wax benn fifteen bu ñu ci benn compte ni Karim Wade moo ko ko ko ba kon naa nekk pendant yooyu nag léegi dafa jot na Sénégal léegi koo ci wax nit ku ne ba ñibbi sa kër boo génnee li nga jëkk xalaat mooy ndax di nga dellu sa kër wala kaso ngay fanaani xam nga ni loolu day na war ci dëkk bu nit ñi am traumatisme doom am na yi ñu war a xeex muy violence bi le chômage des jeunes la santé les l'enseignement il y a des l'agriculture am na problème yoo xam ni c'est extrêmement important mm. que gouvernement wax si au que ñu dem tabax ay building fële ci ay jam ñaajoo xam ci fan mënoon nañu wax ci loolu ñu construire une économie qui soit solide mm. wax ci affaire pétrole bi mm-hmm. ñu gérer que de manière transparente ba nga xam ni li ciy jógee mm. non seulement parce que boo gisee pays pétrolier yëpp tey yi nekk Afrique ku kenn amatu ci dara mm-hmm. parce que entreprise étrangère yi muy Total muy Shell ñoo ñëw jël ko tibb lépp yóbbu fi mu nekk nii fifteen amatuñu mhm. ba fi mu nekk nii même seen valeur monnaie mi ngi dévalué wu parce que boo gisee côté CEMAC mhm. fi mu nekk seen valeur monnaie mi ngi dévalué parce que amatuñu benn mhm. transport ñun nag loolu war nañ ko mën éviter en mettant en place des structures de gestion la transparence mm-hmm. et gérer Sénégal comme un pays qui soit parce que Sénégal quand même mm-hmm. am na ressources humaines am na ñoo xam ne am nañ fi xam-xam mm-hmm. am nañ fi xarañ ci domaine yëpp donc lépp lu ñu bëgg def rek ñun te defuñu ko rek xëy na def ñu neex wala pouvoir du jàllankoor ko ñu bañ a def ñun loolu la ñuy wax moo gën ay appel au yoo xam ne du jeex te du indi dara nañ dox réew mi ci yoon teg ko ci yoon justice bi indépendante euh, économie bi ñu def ko pour euh, suñu industriel yi nga xam ne bi ñu fi ñu jox leen marché yi au ñu koy jox étranger yi ñun loolu la ñu wax avoir notre souveraineté à notre portée et l'exercer pour ñu développer Sénégal loolu man mooy sama axe te incha allah ci loolu lay dox mais dugg ci gouvernement d'union nationale ak gouvernement de désunion nationale kooku ay farce politique la li ñu war a def moo di teg Sénégal ci raay bi doxal ko ci yoon pour ñëpp mën ci bénéficier réew ñëpp képp kuy doomu Sénégal mm. te nekk ci biir réew mi rek sa àq ñu jox la ko ak sa yelleef ba nga mën a dund de manière digne et responsable. Mm. en euh, euh, que li nga wax nii euh, dina dal ci nopp yu baax yi monsieur le ministre Cheikh Sadibou Fall sa émission jeex na ñu ñu ñu bàyyi la nga tàggatoo ak Sénégal yi la doon seetaan. waaw euh, di la jërëm di la sant ci sa euh, invitation bi kontaan naa trop tey parce que permettre nga ma ma exprimer loo xam ne bii ëllëg dana mën a leeral ci xelu nit ñi lan mooy seen position ci problème yu bare euh, Sénégal yi itam jëli si njëriñ di comme ni ma ko waxee bu njëkk rek di ñaan yàlla yàlla def jàmm suñu réew yàlla leeral xel yi tàpp xol yi bu ñu mën a waxtaan ñun ñëpp sénégalais lañu seet suñu biir nan la ñuy jubbante si parce que àddina bi dafa jafe. Mhm. àddina bi dafay gën di métti. Mhm. nit ñi di gën a bare. soxla di gën a bare. Mhm. bu fekkee nag dañu am ñoo xam ne bii loolu ñu nekk ci ko nguur gi loolu defuñu ko seen bopp li ñuy xalaat rek moo di toog pour asseoir seen nguur. wala asseoir seen pouvoir leneen xalaatuñu ko je crois que bu ñu defee loolu daañu jaar à côté. mais j'espère que ni. classe politique bi muy opposition comme pouvoir ñun ñoom nañ delloo si suñu xel. Mhm. ñu seet nan la tabaxee suñu réew. Mhm. parce que buñ ko deful kenn duñ ko def à notre place. Mhm. voilà surtout jeunesse bi di leen ñaax ci ñu gën a engagé wu. ci politique parce que politique boo ko toppatoo moom mi ngi lay toppatoo. dëgg donc nañu xam loolu engagé wu fépp fu ñu mënti bokk nañ fa bokk. waaye lenn nekk ay ay patriote xeex pour seen réew te violence bi nga xam ne bi am na ci réew mi bu yomb bi. jamante ñu teg ko li xewoon wakaam maa ngi koy méttitlu euh, ci euh, final wakaam ak mbuur mm-hmm. di ñaan yàlla yàlla dellu siwaat jàmm ci xel yi ba bu ñuy def sport tamit te te nguur gi tamit mm. Sénégal sport amatu fi mm. dama leen di wax sport amatu fi mm. gis ngeen jeux mondiaux yi fi am Sénégal amul benn représentant ñu ngi jëm ci ay compétition africaine Sénégal dara dañuy dem ba huitième de finale ñu daxaat ñu del sa équipe bi ci football rek bu ñu ko xoolee ci maanaam bu ñu sur le papier nous avons l'une des meilleures équipes mm-hmm. on résultat donc loolu yëpp war nañ ko xoolaat defaraat stade yi. Mm-hmm. maanaam stade bi chinois yee fi defoon. Mm-hmm. depuis combien de temps. stade yëpp ngi daanu di ñuy def ay stade yu ndaw nañ def stade yoo xam ne ëllëg Sénégal compétition bu war a def au plan international ñu joxoon ñu parce que loolu la woon démb. voilà donc daal loolu laa bëgg ay satu duy ñaan yàlla tamit euh, yàlla ñi nga xam ne bii yàlla ñu ngi ci hôpitaux yi. ak ñi nga xam ne bii lañ feebar. wala ñi nga xam ne bii maanaam euh, ñi ngi ci ay soxla yàlla fajal leen ko. ñi feebar yàlla wéral <laughs> mais nag man je m'attendais quand même à à ce que nga terminer euh, toujours euh, sur cette même lancée là euh, woo am na lu ma la bëgg ñaan aussi. mooy féliciter le premier ministre xam nga lu tax. ndax lan da ngay dóor wala. bu la neexee sax damay raay mais parce que j'ai apprécié l'humilité de ce monsieur mm. nga xam ne dañ ko dénk benn mission moo doon mu nekk suñ tête de national nationale mm-hmm. premier jour bi mu demee mm. quasiment avant dernier jour avant veille bi la ñibbisi mm-hmm. donc il a fait tour du Sénégal il a fait tous les départements mm-hmm. plus de 6000 kilomètres mm. au compteur mm. def liggéey bu rafet te aujourd'hui au résultat mooy que dañu am 42 départements sur les 43 donc c'est une réussite extraordinaire c'est confirmé mais donc non sama coalition la sama ah. tête de liste la donc dañuy gërëm euh, liggéey boobu mm. pour wax ni quand même euh, euh, en tout cas si c'était à refaire je pense qu'on a fait le bon choix pour que vraiment ñu am résultat yi Benno ñu ngi ñuy de moins au moins 125 députés mais c'est waaw ah, loolu maa la ko may benn baxus la nga dóor quand même c'est c'est tout à fait normal euh, nga neexal tuuti xam nga yow da nga a neexal tuuti sa sa sa sa premier ministre loolu loolu nangu naa ko je euh, pas méchante c'est pas ton premier ministre ah, mais c'est surtout le tien ah, yaa ñëw kii ba bër je suis plus sénégalais que toi je me pose la question <laughs> kon war nañu xoolaat say mbir ah. <laughs> nañu xoolaat say kayit. <laughs> non mais war xam ne si kayit yow la ñu war a xool sa xeesaay. maa ngi yow dañu jarul ngay yàq. xam nga yaa ngi yàq émission bi eh, mais xam nga xamante ne lan laa bëggoon dama bëggoon nag vraiment Alioune Ndoye euh, euh, que quand même euh, ni nga terminé neex na ma à part dóor yi nga dóor premier ministre te moo la gën nekk naan. ay dóor ah. <laughs> mais da ngay dóor kay. Boun Abdallah. <laughs> yow premier ministre kese ngay toog sama émission di ko dóor. mais eh, man du ma la faale sax léegi. ba doo bàyyi ma dóor ci tanoor aussi tuuti. non non tanoor te <laughs> yow fi nga dóoroo baax premier ministre nga dóor fa foofu foofu baax. non non j'ai été quand même. agréablement waaw loolu loolu quand même quand même il s'est bien il s'est bien débrouillé quand même pour quelqu'un ba euh, nga xam ne ñëpp dañu ne woon euh, euh, vraiment mi ngi làqatu ci ginnaaw bureau am président Macky Sall moo ko naan defal lii mu def bàyyil mu bàyyi mais vraiment il s'est bien débrouillé te wax dëgg yàlla li mu def yow mënoo ko de jéem a ko sax mënu ma ko 21 jours nga dugg ci àll ñibbisiwoo Dakar waaw non non sérieusement je je je peux pas honnêtement je peux pas et moom ànd ak yow ci dóor rek. kon nag bravo xam naa bu ñu la wooyee nag ma woo nag bala premier ministre wooyee. ñooy ànd <laughs> ñooy ànd. ñooy ànd ndax nga filmé ko. je te <laughs> alors dis-moi mais quand même bëgg naa nag vraiment monsieur le maire na euh, euh, euh, quand même président Macky Sall il faut quand même yéen ngeen woo ko. ndax comme ni nga waxee sànq élection. compétition la weesu na n'est-ce pas mais moom c'est quand même le président de tous les Sénégalais donc ki nekkoon élection. même bu dee wàcc ci terrain bi dans les faits c'est c'est quand même l'homme politique le chef de parti. Mm. le chef de d'une coalition mais aujourd'hui élection jeex na c'est quand même le président de tous les Sénégalais opposition comme pouvoir. Mm-hmm. mais honnêtement moi euh, euh, man euh, je sais pas ce que tu en penses toi mais je pense que yéen ñi nga xam ne euh, yéen bokk majorité ak moom da ngeen ko wax mu woo Séné mu mu woo ñëpp bu luy weesoo na apaiser moom moom d'abord na dalal na woo tamit opposants yi toog ak ñoom. Hmm. mais ñu am benn dialogue sincère. pour quand même dëkk bi aussi ñu dal. incha allah dana man ci li ma séntu nii li ma gis. foog naa ne loolu loolu dana am. mais il faut que opposition bi aussi moo tax ma ñaa ma wax la loolu. il faut que ñu gis nga adversité politique. Mhm. bon day xumbal à un donné. mais. Euh, y a un temps yi dañu mayoon un délai. délai bi passé on passe à autre chose. aujourd'hui il faut que les gens se retrouvent autour de l' essentiel. autour de l' intérêt supérieur de la de ce pays là. te loolu euh, moom bu bëggee réussir président. soxla na ko mais opposition bi aussi bu ñu bëggul xam nga enfermé dans un nihilisme bu amul tur na def dépassement euh, rek na def dépassement jël hauteur na gars yi aussi parce que mooy njiit dafa tëddee ñaaxaanaa yaatu ginnaaw gars yi du dóor mënu ko ña mënu la ñàkk waaye yéen dóor yi day metti nag <laughs> yaa ngi dongalee premier ministre <laughs> daa tàggatoo sa émission jeex na <laughs> mais jërëjëf Aïssatou c'est un c'est un plaisir ñëw échanger un moment ak yow mhm. bon c'est vrai que dana am moom euh, xam naa li li lay gënal mooy ñu gën a développé waaw c'est vrai mais da ngay comprendre que surtout bu dee am na ay difficultés mhm, mhm. Euh, famille famille la rek ko mhm. donc euh, mais li may terminer rek mooy nuyu ñëpp ba pare ñaan. Mhm. vraiment nit ñi delloo si xel yi. politiciens yi xam ne muy tàmbale ko ci alindo yi. Mhm. Euh, loo yor yi dañ la ko dénk rek. waaye moomuloo ko euh, kako moom bu ko soxlaa jël ko jox ko keneen. mais xamal ni gënoo ci nit ñi. sama borom loolu la nam na nga ci na nga ko ci sant. et jaar à peut-être lu gëna a neex loolu. la la la la prévoir. li nga ko wax nii rek que nit ñi retrouver wu. quel soit les bords. ñu waxtaan parce que lépp ci waxtaan la. Mhm. weccoo xalaat xam nga waxtaan dañu ne ñu wax tànn. c'est ça du dëgg kon nag nañu waxtaan. Mhm. pour defar suñu réew. Mhm. Euh, Sénégal dafa tuuti. Euh, koo fi li nga xam ne koo fi sànni xeer ba yaa koy faj yi yaa koy tuuti bon euh, yi daal lëmb nañu réew mi. ci laa bokk nag ci laa bokk mais maa ngi sant yàlla di sant waa plateau def nañ campagne ba mu jeex daje nañ nga doomu plateau yëpp ñi nga xam ne ànd ñoon ak ñun waaye ci fo ci kaf ak ree c'est ça vraiment bàyyi nit ñi ñu def seen choix mhm. tey ñu considérer c'est la victoire de tout le euh, ñu dellu ci liggéey bi ànd nekk euh, ay doomu ndey doomi baay mhm. vraiment Sénégal jëm kanam man loolu laay ñaan mhm. te leer na ma ni tey ku ñëpp loolu lañu soxla boo duggee ci kër yi loolu la ñu soxla. parce que da ngay dugg kër kii far fii kii far fii. waaye ñoo bokk kër gi. Ah, donc daal loolu laa mën a wax Aïssatou du la gërëm di gërëm seen chaîne. di wax na ngeen jàppale ñu tuuti parce que dafa mel na daal. da ngeen ñu li ngeen ñu sànni xeer bëri na trop li ngay wax ne da bëgg naa vraiment euh, opposition bi dégg ko ñoo xam ne dañu foog ne ñun ñëpp dañoo ànd ak euh, président ah, daal di far ñun de bu ñu toogee chaque fois dañu naan waaw groupe bi lan lañ leen def ah wax dëgg yaa groupe bi nag ah yooyu Youssou Ndour nag dafa jël ay professionnel teg leen fi euh, moom sax xëy na léeg-léeg ñu bëri na ñun lu ñuy def loo xam ne neexu ko mais moom euh, démocratie moo ko jëlee yaa ngi di toog yaa ngi di toog moom ubbi la sama antenne nga wax la la neex <laughs> loolu tamit si démocratie la bokk mooy li ñu woote <laughs> ma lay remercier bu baax euh, monsieur le maire Alioune Ndoye di la di ndax saa la soxlaa nga ñëw dëgg-dëgg waxtaan ak sénégalais yi et nga wax ay kàddu dëgg yoo xam ne wax dëgg yàlla soxla nañ ko ko nag teggin bu am solo te loolu tamit euh, defe naa mooy li ñu soxla euh, ma ma ma ma continuer waat ci li ma la waxoon gën ko bamtuwaat vraiment président Macky Sall j'espère que mi ngi ñuy seetaan wax dëgg yàlla euh, na na woon moom daal moom moom moo war a wootee dal dal ci moom lañ ko yaakaar te réew mi fi mu toll nii politiciens yi ñu ngi ñu bëgg sonal. ñu ngi moom réew mi kon nag son excellence monsieur Macky Sall wool <laughs> maa yow ñooy ànd non man man man man bu ma woo maa yow ni nañu PM woo rek ñun ñaar ñu ànd dem <laughs> na woote daal na woo na woo nit ñi na na dalal xel yi na sotti ndox mu sedd ci réew mi mm-hmm. euh, na woo opposant yëpp jox leen ataaya ñu naan mm-hmm. ñu ñu Sénégal lañu dëkk Sénégal la ñu am nag campagne jeex na adversité jeex na léegi li des nag mooy dal liggéey pour senegal jëm ca kanam loolu nag président Macky Sall yow yaa ko mën a def keneen mënu ko def yaa yow a yaatu ginnaaw nangu euh, njaboot yi ñëpp ku lay dóor ak ku lay saaga yëpp sa njaboot lañu nga woo ñëpp nag ñu toog waxtaan ak yow nga ñu dalal ñu dox ci leneen donc ñu lay loolu daal mooy loo xam ne nii bëggoon naa ko wax ñu remercier bu baax a baax euh, hôtel Fana ñi ma nekkaloon fii euh, ak personnel bi di remercier bu baax a baax euh, sama équipe Ahmed Nia yaa ngi noonu toog ah sama réalisateur mag bi waa gis nga ko de <laughs> ah eh eh man madame Nia laa de bu ko fàtte <laughs> bu ko fàtte alors Abdourahmane borom son yi neex yi euh, euh, ak euh, mu Mor Xarma El Hadj Mor xar ma ma nga noonu moom itam si ginnaaw sama rakk jooju feggoog ki nga xam ne mooy Mamadou Dia ci rek lumière yi ah ma dem gisee sama bébé moom itam mi ngi noonu ci maki ci maquillage yi maquillage ba tey tey nag seen patron ñoom ma dem gisee di Mado moo moo jaar ci make-up bi mais coiffure bi nag awandaw moo moo moo teg ba pare affaire yi xaw a gudd ci man Mia ma Youssou moo ñëw coupa dagal ma ko mu gàtt dañu TFM dañu am suñu ay salon yu ndaw ndawaan yoo xam ne ña nga fa may fon bu baax nag euh, Muse euh, sama sama sama sama sœur boobu euh, di nuyu bu baax nag Moussa Sène ci montage yi Chérif Dia ci coordination bi Ibou Diouf yaa nekkoon noonu ci portrait yi Joséphine Mbuub ak équipe am ñoom Didi ñoo nekk kon ci production bi incha allah face to face beneen dimanche jërëjëf.